jaar permet de waan di la bàyyi nga nuyoog mbokki internet yi. alors 4 TV ñu lay nuyu di la siyaar di la sant gërëm di la baal ak di la baal wax si julli gi ñu jógee ak coono bi ñu nekk jàngi reefan yi ñu jógee lépp yàlla la ko am waaw ndax dañ ko defoon dañ ko def ngir yàlla koor dañ ko woor ngir yàlla koor gi noonu jàngi reefan dañ ko def ngir yàlla noonu tax ñu ngi ciy masawu reefan yëpp. di leen baal di leen ballo di leen jaageen jëf seen coono ah, waaw. macha allah euh, temps yi coow li bari na de. Mhm. alhamdulilah euh, coow dafa war a bari ndax dañoo fengale ñaari weñ yu mag te ñaari weñ yu mag boo leen fengale sawara dina bari moo tax foo caar coow li bari mun da ñàkk mun da ñàkk waaw waaw. ñu gis dafa def sorte wane état de forme am ak ay entraînement am euh, déjà yow noo gisee noo gisee lan ngay wax ci forme Tapha Tine bi nga gis. waaw parce que dafa am loo xëy moom la soxla woon te moom la wuti woon te jàpp nañ ne li mu soxla woon am na ko euh, ndax combat bi dafa am foo xëy ne fi la toll Tapha dafa am fu mu nekk te fi mu nekk dafay war a jóge am fu mu jem te fi mu fa mu jëm nii la ko fay ak la koy may la mu fay wuuti xam na ko looloo tax euh, il faut mu def li mu xam ne loolu la war a def wone li mu war a wone te bul xam nag eh, li mu denc moo ëpp li mu wone lu bari la lu bëri la denc. kaw gi rek lañ gis eh, dafa nëbbu ci li côté suuf gi daf ko nëbbu. waaw mais loolu loolu rek la ñuy wone parce que loolu dafa am lu tax ndaxit comme combat bi dafa tollu foo xam ne nii ah wax dëgg yàlla comme sponsor yi dañ ciy jàpp ak ak publicité bi rek comme Baye Ndiaye ni mu ko bëggee il faut itam. a ah, dina dinañu woon itam euh, euh, amateurs yi ak supporters yi loo xam ne dina leen wóor ne ñoom dina leen jarale ñëw dagg seen billet il faut ñu wane ko ci mais na la wóor ne li li ñu wone nii li ñu nëb moo ëpp te loola bu bees baa lañ la ko nit ñuy gis. am nañu loolu image yu yàgg la daf ko génn loolu yàgg na mois. non loolu amul sax un mois noonu non amul un mois déedéet amul un mois parce que yi moom. soo génnee benn image moom coow li da ciy bari trop ñii ni ngi wax fii nii ñii di wax fii nii mais euh, l'essentiel que message bi nga xam ne moom la ñu soxla woon pour jàllale ko jàll na message bi jàll na parce que ñi ko ñi ko gis bari na ñi ko dégg bari na ñi ciy commentaire bari na. mais lan si lan la si jublu woon wane boobu génn boobu mu génn lan na si jublu. waaw mais dafa am message bu mu doon jàllale parce que comme bi mu demee ak léegi yàgg na ñu ngi laajte ci lu mu nekk wala lan lay def. ah bu ko defee nag li nga xamoon ne ci lay liggéey mu nekk ci mu am tuuti lu muy coof rek sanil ko waa Sénégal pour ñoom itam ñu xam ne kat kii kon ba mu demee teru dina la am na ci lu mu ne waaw. mais ñu gis dafa yokk dafa gën a yokk masse bi masse musculaire bi lu war loolu adversaire moom moo moo mel noonu wala. non parce que Tapha dafa nekk ci yoon boo xam ne nii dafa war bu jóge ci kii dem ci keneen ci incha allah ci kattanu yàlla ndax boo ko seetloo. Tapha defe naa ne boo ko boo xoolee dix ans yi ci ginnaaw nii boo xoolee liggéeyam yëpp escalier la day teg tànk bu ñu ne waaw bu del see mu tegaat beneen ci kaw ci foofu nag la nu toll dañoo ne ci escalier dañu yéeg jëm ci kaw te ko naa ne ku yéeg ci kaw boo tegee tànk normalement bi ci suuf mooy fekk ba ci kaw waaye bi ci kaw war na fekk si bi ci suuf loolu la fa demee nag. am nañu critique forme bi ne loolu du forme mbër forme comme bu bodybuilder lay nirool noo gisee loolu wax yooyu. mais xam nga dafa am ñu xam làmb. am ñoo xam ne ay waxkat lañu mais waxkat yi nan leen bay ñuy wax rek gis nga nga jégal ma wa mais dafa bari ñu ñuy dekk micro ñoo xam ne nii ay waxkat lañu ak a bëri man commentaire yëpp laay déglu mais xam naa ne waxkat yi moo gën a bari borom xam-xam yi su ma sañoon nag dañuy xel di dem ci borom xam-xam yi laaj te bàyyi waxkat yi waxkat yi bari na de waaye am na ñoo xam ne nii walaay xamuñu dara ci li dañuy wax rek xam nga rek moom te di soo waxee bépp nit ñëpp dañ la ah waay diw li mu wax li mu wax ah te wax mais entraînement bi Tapha Tine yor nii defe naa ne amu ko woon ci Eumeu Sène te entraînement bi mu am ci Eumeu Sène amu ko amu ko woon ci Bombardier entraînement bi am ci Bombardier amu ko woon ci Boy Niang kon nga xam ne ça veut dire li ma lay wax nii mu ngi ñëw waaw mu ngi avancé escalier la rek comme nag la muy yóotum nga ca kaw noonu la ñuy demee rek bu bon fay ak incha allah rabi waaw. yaa ko wax léegi da génn doon am message ba ngeen doon lancé mais bi ngeen lancé message bi dafa mel ni ki si waroon jot na ci ndax moom tamit génn tontu def na état a demee parce que ñoom ñaar euh, li ñuy wax ni dangaa yiw bi béyu jéeg yi moo ci ne dañoo yiw béyu jéeg yi te jigéen ñi jéeg yi defe naa ne moom boo yiwee seen béy ah di leen ko fay wala doo dem rooti wala doo dem taxani kon nit Balla Gaye it il faut mu am lu mu wone Balla Gaye it boo ko xoolee xam nga ne wax dëgg yàlla macha allah liggéey na fa mu nekk te it li mu wone lu ndaw la la mu denc moom li mu wone. kon ngeen naxante yéen. ah mais mais noonu la statistique la rek kenn ku ne da ngay xool fi ngay jaar pour euh, ndax sa morom rek parce que boo ko seetloo bere mook dam yee yem rek benn pion ngay juum ñu dam yee la moo tax naxante bi il faut mu bari du ci mën a ñàkk mooy calcul bi day bari trop nag. le 5 le 5 war ngeen ñëw fii Sénégal def face à face est-ce que après face à face a delluwaat euh, entraîner a des fii pour contact ak yooyu. waaw parce que loolu ça ci promoteur bi comme dañoo signé ak moom contrat contrat bi fu ñu soxlaa dina war a ñëw bu fekkee euh, def nañu face à face ci diggante Ama Sène ak Sa Thiès bu ñu defee ba pare ah dinañu xool boo xam ban diire la ñuy mayaat. parce que dina am peut-être mun naa mu amaat face à face bu jegeñee wala mu amaat boo xëy ne bu sori la bu fekkee dafa am boo xëy ne dafa sori bëgg a laal ay un mois quelque kon demaat defaat foofu demaat defaat fa un mois un mois dana fa xeej waaw noonu la ko parce que ça dépend ci euh, promoteur li nga xam ne la ñuy may nag waaw. waaw parce que contrat jàmbur lañ ne dañoo xes a signé ak moom contrat te it bëgg bu bees ba Baye Ndiaye du kat li nu waxante woon ak moom ñun defuñu ko nun li nu bëgg kay mooy xëy na moom mu def loo xam ne bokkul ci contrat bi waaye ñun incha allah lépp lu bokk ci contrat bi rek te nu signé ko ñun dinañu ko respecté incha allah rabi waaw waaw. Mhm. dafa da ngeen def face à face ñu gis dafa indi beneen beneen genre communi beneen façon communication bu bees mu ñëw tey bàyyi Balla ak ak wax ji nangul wax nekk moom day xaar jour combat bu mu jëf. am nañu ne euh, seen face à face bi ñu war a def le 5 moo diggante Eumeu Sène Sa Thiès dafa war a dafa war a wax ak Balla gañ a jéem a gañ bi parce que bu bàyyi ni com bu bàyyi ni bataille psychologique bi Balla gañ ko ba jour combat bi mën na ko indil ay problème non loolu dégg naa gars yi wax waaye borom wax gars xamuñu làmb gis nga làmb dañoo wax ba mu taxaw léegi yow boo waxee ba mu taxaw lu fa des da nga war dem liggéeyi boo bees baa nga jëf ñun loolu. loolu combat bi ma ne avant combat nañ li wax nañ li war a wax ba Tapha Tine ak Balla Gaye amat du ñu waxati lu bees ci combat bi xam nga lan moo ciy lu bees ah liggéey boo ñëwee ñi xam ne nga liggéey bu bees baa nga jëf li nga war a jëf ñu xam ne kii lii moo taxoon mu toog jam jàmburam mais amu fi di wax ba parle yu bari métu ko jaru ko parce que ku ne xam na Tapha Tine ku ne xam na Balla Gaye kan ku ne xam na li mu mëne ah mais wax ji bataille psychologie bi loolu ay caaxal la rek boo ñi naa lan mbër dafa am bataille psychologie ci wax ji loolu c'est faux amul waxkat yi ñoo koy wax rek mais di di bataille psychologie la def bataille psychologie ci benn fan la benn fan la bataille psychologie benn fan benn fan la te benn fan bi bu accès ay minutes la ça fait dix minutes ou bien lu gën a bëri ndax di minutes ah kon foofu bataille psychologie fan la ci mën a ah xanaa au moins ñu war bu arbitre soufflé mu am tuuti renvoi de espace yo foofu tuuti ah xanaa au moins loolu nga mu wax mais Badaji mais foofu tamit wax dafa bu arbitre sifflé day a dugg ci combat bi day absenté premier minute yu njëkk yi loolu loolu est ce que seetlu googu ak est-ce que jot ngeen corriger loolu. non ñoom ñooñu li ñuy wax ñoom ba léegi dañoo reer Tafatine Tafatine du absenté wut ab loolu du absenté ci ci ci ci ci am temps boo xëy ne loolu ci moom la nekk naturel la ci moom kooku mu ne su ko dindi. Tafatine bu arbitre sifflé nii mu am temps mu toog temps tuuti. xool soog a réagir ci loolu kenn mënu ko dindi ci moom loolu waxkat yi dañuy wax rek ban dégg naa seen wax sax ñu naa <laughs> entraîneur bi moo ko war a dindi yooyu mais gis nga doomu aadama dafa am noo koy nu ko suñu borom di bindee loo xam ne lay doon ci moom nga noonu parce que li ngay gis nii euh, mbir yoo xam ne ne bu arbitre di siffler rek dañuy tëb rek dal sa kaw parce que loolu yàlla moo leen bindee loolu seen munin la am na ñoo xam ne dañuy xaar am na ñoo xam ne il faut ñu toog un minute deux minutes trois minutes soo ko soo ko xam soo ko réagir ñëw sa kaw. bu fekkee ad fekkee donte ko na naturel la ci moom mais bu fekkee adversaire yi muy bëri dañ koy gis comme benn défaut di ci profité lu ñuy def est ce que loolu jëm ko dindi. waaw mais dama la ko xamal ne la Tapha Tine li mu bëri ñaata combat la ah ban problème la ci am ci ci loolu mu mu arbitre suuf la mu mu lewaatoo arbitre dal ci kawam te dafa den la gis ñun li am solo mooy leen ci ñun li am solo te ñun loolu xam nañu ko te noonu ko te liggéey nañu ko Tapha Tine li booy bu bu arbitre sifflee mu taxaw jaxaloon yow loo gaaw gaaw dina la gis booy ñëw booy mu gis la te boo te booy ñëw mu teel pour pour am li mu bëgg loolu moo ci li am solo mais yeneen li nga xam ne moom la nit ñi yooyu amul benn solo amul solo ci non non ci pour ñun. amul solo parce que li ñu arrangé te mu jig nu loolu nun loolu mooy suñu problème mais li nga xam ne arrangé wuñ te jigunu duñ ko lijjanti dañ koy bàyyi fële parce que bu nu ko xam loolu bu nu ko bëggee topp di ko lijjanti da dañuy dañuy tardé te danoo toll foo xam ne ni njuumte ak erreur ak tardement yooyu dañ koy tege côté yàlla parce que dafay am loo xam ne xëy na am na bu ñu fi tolloo yooyu waratuñu non combat bi fas yéene fas yéene fas yéene wu leen ci wax dara def la ngeen ci indi. non wax si wax si mënul ñàkk parce que am na période boo fa àggee il faut da nga am kaddu yoo xam ne di ko génne pour doomu aadama yi dégg ko dafa am kaddu yooyu fook mu gën pour doomu adama yi dégg ko mais day am na ci wax boo xam ne bu fekkee dafa amul njëri c'est pas ñu di ko wax parce que boo seetloo seen fas à face premier face à face ah wax bi ñu fa wax amul benn njëri pour man laa la. lañ fa wax lépp amul benn njëriñ parce que loolu waxu nañ ko depuis 2013 bañ ko waxee ak léegi ça fait 13 ans 13 ans ou bien 11 ans 2013 ah loo wax boobu lañ fi nekkat di ko répété waat même journaliste yi combat boobu lañ nekk fa teg di ko répété di ko répété waat di mais loolu du dara ci ñun parce que ñun xam nañ la mu demee. léegi ci biir combat bi ñu ñëwaat ba léegi li nga li nga woowee wax waxkat yi ñi nga xam ne wax ci làmb dañuy wax ci làmb euh, bi mu yor ci làmb ak gabarit bi du yoon muy ànd un pas en arrière ci Balla loolu bu loolu bu ko kenn wax ci làmb làmb ah, dafa am arrière dafa am avancé dafa am latéral gauche dafa am latéral droit. est-ce que yëpp nga war a arrière la est-ce que am na mbër yoo xam ne boo leen arrière la dañ leen may dañ leen di may confiance. am na mber di ko mën fuuf ëpp ko doole daq ko bëree mu attaqué la nga réclé pas bàyyi ko mu ñëw loolu dafa bokk ci làmb nit ñi nit ñi nanu waxee xam-xam te bañ a waxee waxu far man ma degg naa analyse yu gis naa mais waxu far la nuy wax mais loolu du waxu gis nga man su may wax tey jii nii ñëpp xam nañu man tawaatin moom moom laa faral mais nag soo wax dëgg dikkee ci balagay Gaye du ma far du ma waxu far damay wax waxu dëgg ku ma gis xam ne man dëgg laa wax parce que lii tax man nit ñi nawloo ma respecté ma man loolu laay def mais du ma wax lu tax nit ñi di denc man rus naa di wax loo xam ne nit ñi dañuy denc man parce que âge bi ma nii ah, man xam nga ne sax man bàyyi làmb sax moo ma war dem toog nopplu ji mais kon nag waratu waratu may wax loo xam nit ñi dañuy denc man ak bu ëllëgee vaar dafee am de <laughs> na nit ñi def très attention bàyyi comme vaar am na fi na nit ñi def attention foofu. combat bi dina am vaar yu bëri yu ci yu bëree bëri na ci xew parce que waxkat yi li ñuy wax dafa bëri dafa bari soo ma laajee ci balagay Gaye liy dégg non dama koy wax ci dégg. loolu gis na moom mu nekk ci Balla Gaye ci dëgg ci combat ak Tapha Tine bi ci jour bi. waaw Balla lii mu nekk ci dëgg te mooy leen kenn ku ne xam ne Balla Gaye mën naa bëre am na fit ah su arbitre bi sifflee mu ngi sa kaw amul lu mu lay may te du question ni bala day xeex ak yow saa bu la xobee nga aj sa gar bu dawee mu jaw jàpp la bëreeg yaw daal loolu kenn ku ne xam nañ loolu bala mooy forum ah loolu nga xam ne dégg la far ak Tapha Tine du tee wax bala li nga xam ne mooy dëgg ci moom. Hmm? comme ñi ngi wax Balla di li nga xam ne mooy dëgg ci bala dañu wax ne euh, tey Balla ci côté mental dafa mën nañu doole doole ci combat bi mais ci côté mental mental moo xaw a des ci bu jàkkaarloog Balla. non non non non fi mu toll nii tey. mu ne ñi ki nga xam ne ni tey ban entraîneur moo dàq entraîneur Sénégal tey mën na jagal Tapha Tine tey parce que amul amul ku ko sut ti ci bëre fi mu toll nii wala nga gën koo gën koo mën parce que action bu ne fañ koy defee saa bu jotee xam na fi ñu koy defee te it ba action bi boo ko montee fa mu koy dindee moom xam na ko te ñaar rek moo gën a fort ci loolu xam fi ngay songe xam action bi ngay def ak xam fi ñu lay songe bu ñu la songee action bu ñu la monté nga di nga dindi ko waaw loolu moo am solo ci làmb. solo ci làmb ji mais léegi dañuy gis ci combat Balla bu arbitre sifflé muy attaqué moom arbitre sifflé day attaqué bu attaqué imposé la bu ko après taxaw téye boppam dootul day day taxaw téye boppam foofu bu taxawee bu loolu amee ci combat bi est-ce que di nga jël seen responsabilité wax ak Tapha Tine moom mu mu diriger combat bi def li mu war a def. Tapha li mu war a def incha allah dina ko def dama bëgg ngeen yoo xam ne làmb ji. amul koo xam ne ni moo daq bëri ci làmb ji amu fi kii dey daan kii kii daan kii kii daan kii parce que Balla kenn ku ne xam ne bërëkat la nan la ko amal seen def amal seen nan la ko Modou loo def Modou Lo nan la ko Balla Gaye def Bombardier nan la def nan la def Bombardier nan la def Balla Gaye seen nan la def Bombardier kon yow boo bëggee bëgg wax ne diw moo daq bëri ci làmb ji man d'accorduma yow mun ngaa d'accord mun nga ne yow yaa dàqa bëre ci lam ji ki gën a cuure daan la deux fois nga ne yaafi fi mun ah est-ce que loolu kuy xalaat wala nga am bopp wala ngay nit war nga bàyyi xel ci loolu man d'accord man de diw moo dàqa bëre ci lam man daal d'accord naa Balla Gaye mun naa bere Modou Lo mun naa bëre Tapha Tine mun naa bëre Ama Sène mun naa bëre d'accord naa ay la lañu mun na noo bëre waaye ki fi dàqa bëre te yow yaa fi dàqa te nga dem cuure bi daan la ñaari yoon kon xanaa daqoo fa bëre kon xanaa cuune bi moo la daqa bëre ah waaw gars nañu def très attention ci lu ñuy wax nañuy waxee xam-xam te bañ di waxee dama far waaw te incha allahu rabi donc kooku moom lépp loo xam ne ñun loolu la ñu war a def ci combat bi dinañu ko def li ci des nag dinañu ko baay ci loxo bi yàlla waaw nga xam ne booba de dañuy ñaan suñu borom ne quoi li ñu war a def dina ko noo ngi lay ñaan nga may ñu ndam te incha allahu rabi jàpp na ne yàlla mi may dinañu may ndam waaw incha loolu am na solo coach merci ma la jaajëfal di la bàyyi nga tàggoo. Mm-hmm. waaw sëñ Xaadim ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la balax di la balu ak di sant Cheikh Ahmad Mbacké sunu sëriñ bi nga xam ne waa gaawaan nag daal sa gaawaan yëpp ñëw nañ ci jàngi reefan yi wax dëgg yàlla di si ne sëñ Ahmad Mbacké sama sëriñ di si ne Baye Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa alaaji takku képp kuy waa Daaru Salaam rek. ñoo ngi lay nuyu di la siyaar rawatina waa gaawaan gi xam ne fa lañ sub jéblu di nuyu nag fan si club Tapha Tine yëpp ñoom Siga ñoom Bamba El Capo ñoom Elimane Prési Pa alin spécial ndax Pa Aline dafa jóg uniquement ñëw ci jàngi reefal ñëw sama kër Pa Aline maa ngi koy nuyu di ko siyaar lu wér wér noo ngi nuyu sëñ daam ñi ngi Kaolack sama rak la maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama mbokk yi xam nga comme léegi eh, dali for laa dëkk cité mairie maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di la ñaanal yow itam wér wér le bari le barkel le di ñaanal ñëpp Sénégal moom jàmm di ñaan nag fan si club yi bool bool yëpp naa leen talal loxo ne leen bu combat Tapha Tine bu jotee bu kenn des na ñëpp ñëw ñëpp jën bi dugg stade bi fees del suñu borom may ñu ndam lu set guy ñu daan Balla Gaye jël bu set dem ñibbi. macha allah ku si am na solo di la remercier bu baax di la euh, ñaanal jàmm di la ñaanal tamit wér ak tamit gudd fan bu baax ci li nga xamante ni mooy sa mooy sa àdduna. di sant ñëpp ñu suivre 4appuis di leen euh, ñaanal jàmm bu baax a baax di leen dig daje benn ñoom benn invité ci waxtaanu lamb